السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكين ودقلو خيو خيو بري دي فاسيني أمنا فكي فان أجنين تشويرو ديسمبر تي أليانس فرانسيز بكاولخ كي نجيتي لبر سالوم قدير مبوج أند أك نيغو سالوم نيو فاسيني دي لون جوكل مغو سالوم تي درجة سون اكسلانس لبريزان دي لا ريبليك ماكي سال نيو دي لون جوكل بر بيغان نور premier bër saalum laaj me nge jëleen njaay bër saalum la woon baleen nungu xurey ja ndaw bër saalum la woon samba lawbe lat suk faal bër saalum la woon gadeel kumba dàgg mbooj bër saalum la woon semu jimi juuf bër saalum la woon ak foode nguy juuf bër saalum la woon ci delloo ci seeni jikko jàngat jox ko xale waaye di ci oo nag seeni njaboot seeni njeexital ñoo tiitaroo maam yooyu xam ne nañu tiitar nañu tiitar ci réew mi waaye nañu tiitar ci Saalum di ci oo Saalum yëpp waaye di ci oo Sénégal yëpp ci bés bu rëy le 24 décembre ca Alliance française asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu